kon ngeen gis ko noonu ñi ngi fii nii fekk si waa commission cuisine boo leen déggee cuisine nag ngeen war a xam ne wàllum bernay fii lay jugee joorin ginnaaw buñ la nuyoo ziar la ndokkeel na si bis bu am solo bi nga xamante ne ñi ngi ko amal tey ana lan nga ñu si mën a baaxee si liggéey beeg surtout wàllum waañ beeg yooyu noonu bisimilah ahousubillahi min sheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim nafayta iblisa li xeyri abada fi seriza wa kulla man lam yabuda barke borom Tuubaa ñu ngi leen di siyaar bu baax di leen joxaat seen wàccuwaay te di leen euh, masaw itam ci coono yi nga xam ne dañ ngeen ko bu dugg ci waañ wi ndax ku ne xam na ni maanaam waañ ni mel ak itam ci tàngaay ak itam saxaar waaye ngeen am liggéey bu ngeen ci def ngir jaarale ko ci liggéeyal ci borom Tuubaa comme ni nga ko waxee ci sa question maanaam liggéey bi niñ ko waajee ak ko dooree lépp rek dafa doon ci loo xamante ni ngir nuñ mën a fexe ba murid yi nga xamante ni ñëw nañ fi ànd ak ñun liggéey bi Serigne Touba bi ñu mën a fexe maanaam ba am ci loo xamante ni lu kawe seen jot la ci mbégte ci wàllum maanaam teraanga ak xéewal yi nga xamante ni am nañ ko. moo taxoon ñu nekk ci barab bi nga xamante ni moo di cuisine bi ngir doon ci mën a préparer ay xéewal. macha allah kàddu yi am na solo xam naa dañuy jox mbokkum taalibe rek bu amee lum si eh, dolli bisimilah. waaw bu baax eh, mu mel ni comme ni ko Diorine waxee rek liggéey bi eh, tarkal la. macha allah daanaka lépp lépp tege na place am lu nekk ni nga ko ni ko war a jëfee euh, mbokk taalibe yi bu dee àddee joxe nañ ko lépp lu ci war rek ñu ñu ñu ko joxe tax nañ seen laxasaay nekk ci liggéey bi boo xoolee daanaka kenn toogul ñii ñu ngi ci xasde yi ñu ngi ci njàng xasde ñii ñu ngi ci liggéey bi taxaw nañ taxaw nañ ci bu baax macha allah kàddu yi am na solo lool tey rek ñoo ngi fii fekk si waa commission kafe nga xamante ne ñoo ngi amal lu am solo si bis bi euh, ñu ngi taxaw ak jëwriñ cellule Dakar bu Majmahun Nurayni ak ki nga xamante ne mooy jëwriñ fédération Majmahun Nurayni bu cees bi euh, jëwriñ ginnaaw buñ leen nuyoo ziar leen ndokkeel leen si bis bi ana naka ngeen dundee bis bi ay si wàllum kafe gi bismillah waaw ginnaaw buñ sante yàlla julli si yonent bi di sant Serigne Touba gaa yi ñu gën a góorgóorlu gën a takkaat laxasaay te xam ni Serigne Touba moom boo ko di liggéey tànk kanam rek nga siy jëlee doo si jëlee tànk ginnaaw ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax di sant euh, waa waañ bi parce que depuis bu ñu ngi fii di lu kenn nelawul gars yi ñuy góorgóorlu bu baax a baax a baax baax di sant suñu suñu jëwriñ Fodé moom tamit jàmbaar la bu baax a baax a baax waaw bis bi daal wax dëgg yàlla sama xol sedd na si trop trop trop trop di ñaanal di ñaanal ñëpp di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak mboolem képp koo xam ne mi ngi koy jàppale si liggéey Serigne Touba bi defal ñu xéewal defal ko mboolem jullit. macha allah ñu ngi lay jaajëfal yi am na solo jëwriñ si tënk rek looñ si mën a baaxee bisimilah. waaleykum salaam wa rahmatulah ah, waaw comme dëgg la loolu moo ñu fi indi niñ ko waxee woon si wàccaay rek un ziyaar loolu moo ñu fi indi ren ji ñu ñëw ànd ko waa cellule Dakar ñu ci taxawaay bu am solo boo xamante lii daal moom roykaay lañ ci lépp wax dëgg fa te lii moom wane nañ yoon ci soñño yu am solo yi ak liggéey bu am solo yi incha allah rabbi jërë jëf jërë ngeen jëf ñu gën a góorgóorluwaat rek si soññee bu am solo bi comme ni ngeen ko gisee noon rek ñu ngi fii fekk si waa hygiène ñi nga xamante ne ñoo féetee si wàllum toilette yeeg euh, rootum ndox mi nga xamante ne moom nañu faral di yees luwee kon soxna si ginnaaw buñ la nuyoo ba noppi ziar leen ndokkee leen si bis bi naka ngeen ñu mën a ñëwal si seen liggéey des fois yan yan jafe ngeen si am ñoo ngi leen di ziar di leen wàcce seen wàccuwaay ah liggéey bi fii de waa hygiène moom mën nañ ne metti na mettiwul mais kenn ku nekk boo jàppee ne sëñ bi nga koy defaral rek du metti ci yow fii dañuy dañuy jàppale nit ñi pour ñu yees yeeslu euh, dajale satala yi dajale matériel yi et daal kenn ku nekk boo aajowoo sa bopp rek mën nga ñëw ci ñun. jàppal ne kii kii toog ci saal bi di juru sasida keneen kii nekk ci ci ci toilette beeg wala waañ beeg yëpp benn la ndax xidma gi moom yaakaar naa ci ngay gën a mën a amee sëñ bi sax. waaw kon xam naa dañuy jox ki si des rek bu amee lum si yokk bisimilah soxna si. bisimilah barke borom Touba ñoo ngi leen di delloo di leen fay nuyu. comme ni ko soxna soxna Awa waxee rek liggéeyu hygiène moom metti na mettiwul metti na si kaw nga dugg si liggéey bi te xamoo lan moo tax nga dugg si mais neex na si benn côté si boo duggee si liggéey bi nga xam dëgg-dëgg lan moo yëkkati liggéey bi ak lan moo tax nga dugg si euh, comme que ñun dañoo dañoo volontaire ñu opté pour euh, liggéey si hygiène mën nañoo wax ni foofu lañ mën a amee ngërëm sëñ Touba maanaam sëñ bi buy fay ñeneen ci buy fay comme ñi nga xam ñi ngi nekk culte wala dara mi ngi leen di fay seen turu sachet wala dara mais ñun si liggéey hygiène bi si toilette yi si for euh, sachet yi ak euh, si raxas bool yi si lañu mën a fayee. ñu ngi leen jaajëfal si kàddu yi am solo yi. ñoo ngi fi fekk si ñi nga xamante ne waa accueil boo leen gisee euh, solin bi yaay nañ bi rek nga xamante ne ñoom ñooy accueil yu gan yi ginnaaw buñ la nuyoo soxna si ana naka ngeen dundee bis bi delloo ziyaar sa soxna Fatou waa bés bi moom alhamdulilah comme nuñ ko daan defee saa de teel na ñoo ñëw dalal gan yi waajal ci li ci gën a ëpp solo muy fii bërëb bi. Ah, soxna yi nag comme ni nga ko gisee boo xoolee xam ne waaj nañ bés bi ndax euh, solin yi jot na ta na loolu macha allah. muy mel ne yi ngeen li ngeen gën nañ si bàyyi xel bu baax wala. waaw loolu sant nañ ci. tamit ndax euh, soxna yi boo xoolee nañu soloo lu baree bari luñ daan bañ bàyyi nañ ci xel lu ci mel ne ay bënn bakkan sol col goo xamante ni nii méngawul ak barab bi yooyu yëpp bàyyi nañ ci xel bu baax a baax bàyyi nañ ci xel ba bi ñuy dugg si sax dañ leen di bàyyiloo xelwaat liggéey bi di leen soññ war may barab bi lu ci mel ni saalu soxna jaare bi nga xamante ne ay war ma képp lañ fi war a indi ñun soxna yi loolu it bàyyi nañ ci xel waa te lépp rek dañ ciy sant dañ ciy sant bu baax a baax ndax mën bari wax waaye ñoom ñoo am ak dégg rek neexa daal sant nañ sëñ Tuubaa baax a baax jaa ngeen jëf kàddu am na solo macha allah kii ñu taxawal nag duñ leen ko présenté ti ndax moom moo jiite kuréel gi nga xamante ne mooy kuréel 1 Majmahun Nurayni di sëñ Sidi Wade ak ki nga xamante ne mooy sëñ Mbacké Seck kon joriñ ginnaaw buñ leen nuyoo ba noppi ziar leen ndokkeel leen si bis bi ana ana ban yëgee ngeen am si bis bi ak naka ngeen ko waajalee si wàllum njàngam xasida mi. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh ñoo ngi ziare mbokki jullit di ziare yëpp. di jëtal nuyoo beeg bi sunu yaakaar tey ak ëllëg sëriñ Cheikh Mouhamadul sunu borom yàggale ko fi lool wéral ay cëram ba li nga xam naan la ko liggéey ko seriñ bi sunu borom àggale ko mu àggale ci sagoom te ñu ànd ko ak moom. di ci teg sunu jëwrin sëriñ Saliou Fall di jëwrin mbooloom Majmahun Nurayni fédération des élèves et étudiants comme ni nga ko waxee soxna Ndeye rek comme ni ñu ko daan defee saa su ne. ñu doon ay murid yoo xam ne yaakaaroon ku dul sëriñ bi bëgguñu ku dul sëriñ bi xenc wuñu ku dul sëriñ bi lu dul sëriñ bi loolu moo waral bi bi ñu amee ndigalu taxawal euh, daara ji muy fédération Majmahun Nurayni ci ndigal Serigne Saliou ture ci euh, kilifteewu Serigne Lamine ci lañ tàmbalee xalifa bi ki fi nekkal sëriñ bi ñu koy ziar saa suñ ñëwee bu ñu Euh, jàng bu nu jàngee jàngal ko xasaayit bu noppee jëbal ko suñu addiya ko daan defee comme at yi yëpp daal di guddi dundal ko ci xasaayit ba keroog muy génn bu génnee ñu yëpp ñu jébal ko suñu addiya mu soññaatu dimbali ñu xool ñu bëti yërmande bi nangul ñu suñu ziar ñu dem ba déwén kon yàlla nañ ko teewaay ati at te saa at bu ñëw euh, gën ba weesu. barke Cheikh Khadim kon xam naa foofu la ñuy wàccee kàddu yi rek. ñu gis ni euh, journée euh, bi dañu gis ni waa Hizbu Tarxiya dañ leen di fekk si ànd ak yéen li nga xamante ne mooy njàngum xasida bi. bisimilah barke borom Tuubaa xam naa ne ñu ngi dellu di santaat bu baax soxna day ci kàddu gi te xanaa général Mouride suñu borom yàggal ko fi te gën koo kartanal gën koo dooleel. muy mel ni da laaj lan moo sabab maanaam bis bi saa su ñëwee. waa Hizbut Tarqiyyah dama naan sax ñaari at yi weesu saa su ñëwee waa Hizbut Tarqiyyah di ci den yéene ci bis bi loolu nag mu ngi sosu daaw ci ginnaaw bi ñu ziyaare sëriñ bi ci biir ziyaar bi sax sëriñ bi ci baaxam gi ak bëggam gi murit ñi ñëpp ànd mu gis ni doxin waa mañ maxu nóori ni kat daa méngoo ak doxin waa Hizbut Tarqiyyah mu koo ceeg sëñ eh, Youssou mi nga xam ne moom mooy responsable mara Hizbut Tarqiyyah jox ko ndigal ni ko def yëpp itam dinañ ci invité waa Hizbut-Tarqiyyah ngir ñëw teew ci ngir jëfee ndigalu maanaam sëriñ bi ngir ni maanaam comme jëm na mu jox ñu ko rek maanaam amatuñ leneen xam ne am nañ ci yitte dul lool moom moo waral prestation Hizbut-Tarqiyyah ci bis bi. jàllale waale bu baax a baax de ci sant bu baax sëñ Yuusu ci bi nga xam ne am na ci ndax ba boog léegi mu ngi ci dox ay jéego am solo di ko rafetal ngir maanaam loolu nga xam ne ndigal loolu sëriñ bi joxewoon na ko mu gën a mën a ratax gën a mën a ànd. am ci mbégum sëriñ bi yaakaar naa loolu moo waraloon sababu saa suñu amee ziar bu mel ni ngeen di gis ma teew xamante ne moo ngi bokk si membre fondateur Majmahun Nurayni kon xam naa du ñàkk ñu dégg ko ni micro ginnaaw buñu la nuyoo ba noppi ziar la ndokkeel la si li nga xamante ne mooy bis bi ani ban yëg-yëg nga am si bis bi ak ban taxawaay ngeen ci amoon boobu ba tey asalaamaaleykum warahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi mbo ziar mboolem jullit ci mboolem taalibe yi fépp fu mën a nekk di ñaan sunu kàddu fekk leen ci jàmm di sant bu baax a baax a baax ci eh, opportunité bi ngeen ñu may tey ngir eh, liggéey bi nga xamante ni ñoo ko bokk ak yenn at yu yu yàgg a yàgg a yàgg eh, ñu bokk ci xëy na membre yi nga xamante ni bokk nañ ci ñu ko sos liggéey bi waaye loola tey ji ñu gisee ko nii nga xamante ni nii la ko mbooloo mi yëkkatee ci kaw mu mu jëme kaw lool mbégte moo xamante ni mënee su koo leeral suñu diggante suñ Tuubaa ci liñ ci am di wax ne liggéeyal Sëriñ Tuubaa moom maanaam dimb daa wees lu yàgg yàgg ndax amoo ca dara li fekk weesu na rek amoo ci dara li ci kanam itam leerut wuurul kon tey rek tey tey jii tey jii liggéey bi yëpp daa mel ni kon tey la woon tey moo ko taxoon a jóg bi biñ ci am daal mooy ñëw fas yéene jàkkaarloo ki nga xamante ni mooy sunu diggante Sëriñ Tuubaa ki ci dox te lenn rek dox ci muy moom te ñu jàpp ni bu ñu amee ngërëmal Sëriñ Tuubaa ci moom am ko tey bis bi loolu rek moo ñu ñor ci moom mbooleem ñi nga fi gis tey ñuy xale di mag di góor di jigéen benn sàkkuteef lan am mooy ngërëmal sëñ Tuubaa te sàkku ko ci sëñ Muntaxa mi nga xam ne leer nañu ni sëñ Tuubaa gërëm na ko loola lañu la ñuy santeewaat sëñ Tuubaa di ci am ak mbégte bu baax a baax a baax a baax waa caayi nag moom nan ko daan waajee rek lañ koy waajee ci bu njëkk di ko ànd ak sëñ Cheikh Abdou Latif ñu koy gërëm bu baax a baax baax ci taxawaay bi ci liggéey bi boobaak léegi kóllëre gu yàgg dox suñu diggante ak moom loola sëñ Muntaxa booba nekkagul sax lii mu doon ci sëñ Tuubaa ñu fekkoon ko fii Daaru Minaan mu taxawaay fi taxawaayu sëñ Basiru mu saxante kóllëre euh, mbooloo mi te ñu jaaree ko ci sëñ Cheikh Abdou Latif mooma loola mu mu koy feddali ba tey jii bis bii ku ne xam na ni nii ñu koy siyaaree néewaana wala amul sax mbooloo moo xamante ni da may na la lii ci boppam nga koy fanaanoo di ko di ko bégal ci xasida démb ci minuit ba tey jii ba saa su tijjee ñaanal loola ñu koy ñaanal mu yàgg fi te wér te ñu yàgg ko fee fekk ñu jaay Cheikhul Khadim wasalaamaaleykum. macha allah ànd ak kenn koo xamante ne si superviseurs yi la bokk ñu gën ko xamee ne ñoom ñooy saytu liggéey bi si côté yëpp euh, sëñ Basiru ginnaaw bi ñu la nuyoo ba noppi ziar la ana naka la liggéey bi du dox côté ak naka ngeen doon waajalee ba tey bismillah ok soxna Ndeye ñoo ngi dellu ziar bu baax di santaal bu baax ci bis bi liggéey moom daanaka nu ñu ko daan yàgg a coordonné rek noonu koy mos a coordonné te boobu ba léegi ngi dafa daanaka saa su ne rek sëñ mu ngi def tafew ju wér a ba saa su liñ ci bëgg mu ngi defal lu kawe suñ jot kon dañuy ñaan rek saa su rek mu gindu jëm kanam mbir mbir mi daanaka loolu lañ ci mën a wax ci kanam jaajëfal yoot itam mbokk yi comme ni ngeen ko gisee nii ñu ngi wéyal li nga xamante ne mooy eh, liggéey bi ba tax na ñu fekk si fi ñi nga xamante ne mooy waa rési ñu toog ak kenn si suñu jëwriñ yi di eh, sëñ Mbàkke xam naa dañ koy daal di bàyyi mu nuyu bismillah asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki taalibe ñu ngi nuyu nekk la jox seen waa benn point division boo xam ne moom moo ñuy soutenir pour ñu mën a li xew ci bis bi comme ni ñu ko gisee nii ànd yi passé di daan bokk ak ñi nga xamante ñooy kuréel gi si même bërëb bi tey ñu gis leen fii nii. loolu noonu lañ ko dundee. waaw rek am évolution bu ci am soit ci côté matériel wala ci côté personnel ren nag dañoo am difficulté. Euh, ci matériel ak ci personnel cest à bi nga xam ne moom la ñuy presté mën duñ ko occuper ak matériel yi parce que organisation da ko da ko tërale woon bi léegi moo tax ñu war nekk nii bërëb bi nii euh, division bi suñu gisee nekkul fii waaye moom mi ci biir waaw waaye du tee ñu ñu ngi liggéey ak ñoom à distance loolu moo waroon problème de ndax pour mën a euh, liggéey bi gën a mucc ayib ndax boo xoolee liggéey bi ziar moom saa su ne dañuy sàkk mu gën a jaar yoon kon lépp loo xam ne buñ ko liggéey bi dina gën a rek ci bi lépp rek te dañ koy dañ koy dañ koy jéem a def ñu bàyyi saal fii ñëw installé fii pour gën a nekk bu gën mën a euh, jëmmal bis bi ci wàllum division bi yëpp. macha allah kon leeral yi am na solo bu baax ñu lay jaajëfal jëwriñ gis ko ni ñii nga gis ñoo yor li nga xamante ne mooy wàllum sécurité daara ji euh, sëñ bi ginnaaw buñ la nuyoo ziar la ndokkeel la si bis bi an naka la seen liggéey bi du doxe fii ak yan saa doo leen si am ay jafe-jafe. di wax asalaamaaleykum di nuyuwaat mbokk taalibe yëpp di santaat bu baax ci li nga xamante ni moo nu fi indi te banu fi muy liggéeyal Serigne Touba. waaw bu weesoo loolu comme ni ko soxna si waxee rek muy wàllub sécurité bi waaw fii moom a ah, daara ñu ngi koy organiser normal boobu ba léegi amaguñ ci benn jafe-jafe te wax dëgg yàlla mbokk taalibe yi ñëpp ñu ngi jàpp ci liggéey bi amul kenn koo xamante ni nee nan la defal lii nga ciy indi ay jafe-jafe wala nga ciy indil ay gàllankoor ñu ciy sandaat bu baax nag wax dëgg yàlla sécurité bi nag bi muy demee fi mooy maanaam li nga xamante ni mooy assurer lépp luy kaaraangey bés bi waaw mbooloo fu mu daje daf ci bëri ñoo xamante ne dañ nuy rax léegi nag ñun sunu liggéey moo di ñu assuré kaaraange bi maanaam fexe ba du am lenn loo xamante ni fexe ba du am lenn loo xamante ni day gàllankoor bés bi léegi nag ci loolu ci loolu ñun ñu ngi def benn euh, ñu ngi mettre en place benn organisation boo xamante ni dañuy tas góor yàlla yi am na ay soxna yoo xamante ni aussi ñooy nekk ca place soxna yoo fële am na ñoo xamante ni ñooy nekk ci cuisine bi am ñuy nekk ci salle bi comme ni ngeen ko gisee maanaam fépp foo xamante ni jaarukaay la rek teg nañ fa ab ñaar ñaar wala ñetti sécurité yoo xamante ni ñooy assuré foofu noonu waaw ak yéen fekk si fii la. ñoo ngi delloo ziar bu baax a baax. delloo nañ ziar. Eh, naka naka nga dundee bis bi ak lu waral teewaay bi. waaw bis bi de li ma ko dundee mooy bëgg yoonu sëñ bi rek waaw nee naa ko bëgg yoonu sëñ bi rek di ko doxe di ko waxe nag moo waral sama jataay sama toogaayu fii tey jii. ak bëgg sëñ Saliou Mbacke balaay sa burit bi mu waxale waxu ziar bi moo tax ma jóge sama kër bàyyi sama yitteeg sama yëpp ñëw teewe si ko di ci sàkku ci ñëpp di sàkkoot rek nag yal nañ ko sëñ bu mag bi defal kon muy mel communication bi mu ngi mu ngi dox ba tax na yow tamit nga def sa blanc rek fekk si ñu waaw man nag blanc moom day sama wàllu waaw blanc moom bëgg-bëgg la moo taxit nag ma jàppale leen ci tamit bu baax a baax rek te yàlla nañ ko fekke déwén yu baree bare ah, baa bis bi tey ala daw mi na bu baax a baax ni ko maam Abdou daan waxee ala daw mi na bu baax a baax macha allah kontaan nañ ci lool toogaay bi rafet na. xasida yi dugg na ci xol yi yàlla nañ ko teewe daal déwén yu bare bare bare bare amin macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax tey ziar bi noo ko dundee ak lan moo waral teewaay ziar bi moom neex na macha allah ñu ngi ko dundee kontaante ak tawfeex rek nag ànd ceeg mbégte mu yaatu ndax amuñu lu dul sëñ Tuubaa yaakaaruñu lu dul moom it rawatina dikk fekk leen ngeen di ay ndaw ci yoonu sëñ Touba wi te la ngeen a nekk ci leneen buñ leen gisee dañoo kontaan ci yéen ni royukaay ngeen ci ndaw yàlla na leen ñi réer topp ba gindeeku barke sëriñ Touba lu ngeen liggéey ci bis bi yàlla na ko suñu borom ful teg ko ci loxo sañ Touba mu séddal leen ko kontaan nañ bu baax a baax macha allah. macha ñoo leen gën kontaan si teewaay bi jaay ngeen jëf. di dégg suñ micro ñi nga xamante ne mooy invité yi bisimilah joorin ginnaaw bu la nuyoo ba noppi euh, fan nga bàyyee ko ak naka nga gisee ziar bi tey. waa kay jërëjëf ñu ngi lay delloo nuyoo bu baax di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen ndokkeel si bés bi bu baax a baax di wax soxna Waalo Faye jógee Thiès bokk si daara Hizbut Tarqiyyah Thiès ñëwoon ci ziar bi bokk si ko ak yéen ci tawfeex ñi nga xamante ni sëriñ bi boole nañu ko. sëriñ bi moo wax ci njëriñu ziar jour man tuxibu wa in chattat bi kat daaru kon ziar moom mënta ñàkk ñu ñëwoon nag euh, bokk ak yéen tawfeex ji di ñaan suñ borom ba ñoo defal ak nangu dañoo defal ay xéewal ziar bi nag euh, tawfeexe na lool sax macha allah ànd ak ku ñuy wax soona nee moom itam ñu bokk fuñ jóge jóge daara bi tarxiya Kees ñëw bokk ak liggéey bi di sant bu baax ci ni mu doxee ak ni mu demee di ñaan suñu borom doole ñoo defal xéewal ak nanguk sëriñ bi incha allah. du ñàkk tamit ki mu àndal ñu dégg ko suñu micro mu sànni si ay kàddu bismillah. ok salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen di ziar bu baax di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax bu mel ni man soxna Ndeye laa tudd jógee Thiès bokk si daara bi Tarxeem di rafetlu bu baax a baax di tam am na solo lool ziar bi sant nañ bu baax taw feexe na lool kawe na lool. rafetlu suñu yoon ñu ngi si sant am na solo macha allah kàddu yi am na solo ñu ngi leen di jaajëfal soo leen ko gisee nii ci biir mbooloo mi ngeen xamante ne ñu ngi fii fekk si ñi nga xamante ne mooy waa culturel li ajum si njàngum xasida mi si durus bi si côté soxna yi joorin ginnaaw buñ la nuyoo ba noppi ziar la euh, naka nga dundee bis bi ak euh, naka la durus bi demee woon noonu. aousubilahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim barke borom Touba ñu ngi ziar euh, sunu sang bu tedd bi sëñ Muntaxa di ziar sunu jëwriñ sëñ Saliou Fall ak mboole mbooloo min àndal yëpp di ziar tamit euh, jëwriñu commission culturelle ëttu soxna yi di jaar soxna jaara Sidibé commission culturelle nag nin ko baaxoo di defee depuis sa fajar ba tey ñu ngi si njàngum xasida bi salaatu yi zikre yi ak njàngum alxuraan bi avant ñuy ñëw nag jotoon na noo wàccee ñaari kaamil lu jëm ci wa ëttu soxna yi jagleel ko sëñ mu daxa ñaanal ko suñu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wër dëgg yàlla nag soxna yi doon ay jàmbaar lool ba ñëwee ba tey nekkuñ si daray neen ñii ñu ngi durus ñii nekk si salaatu yi ñii nekk si jukki yi ku lu waaye man rek yaa ngi fay liggéeyal sëñ Touba xanaa ñuy ñaan sëñ bi nangul ñu yàggalal ñu fa sunu sang bi mu yàgg ñoo jiite ñu yàgg say ziar si di ànd ak mañ ma noo macha allah kàddu yi am na solo ñu ngi lay jaajëfal bu baax. ñoo ngi toog ak kenn ci invité yi xam naa dañ koy dékk suñu micro rek ginnaaw bu ñu ko nuyoo ba noppi mu daal ñuy wax ana ana naka la dundee bis bi tey soxna ak fan la jógee aussi soxna ziar nañ la. waaw soxna si maa ngi delloo ziar bu baax man maa ngi tudd soxna Fatou maa ngi jógee ba côté Porokhane li waral sama teewaay fii tey nag mooy ziar bi. li nga xam ne waa Majmahun Nurayni dañ koy amal at bu ne ñëw ziyaare ci suñu sang bu baax bi Cheikh Mouhamed Mountakha waaw ñu am tawféex lool nag ak mbégte lool ñëw teewee si ko ndax dëgg yàlla murit bu nekk jotaay yu mel nii rek la war a sàkk jotaay boo xam ne dañ fay tuddee yàlla dafa yëkkati xasida Sëñ kon bu ñu gisee eh, suñu mbokk yi taxawal ko war na ci ñun ñu ñu def lépp lu ñu mën ngir ñëw teewee si bés bi looloo waral suñu teewaay fii tey. macha allah kàddu yi rafet na muy mel ne tey bis bi nu ko gisee ala daw mi na wala. waaw macha allah moom kay taw feexe na lool wax dëgg yàlla di ñaan rek ñu dajee ci ak sëriñ bi yàgg koo teewee barke Cheikhul Khadim jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñu doon bàyyi xel à travers Majmahun Nurayni TV si ziar bi nga xamante ne ñu ngi ko doon amal tey si kanamu xalif général des Mourides euh, nga gis ko ni mbooloo mi ñu ngi si préparation rek pour daal di delluwaat fa nga xamante ne moom lañ jigee woon ñu jaar si fii si Guédé Bousso amaloon fi benn découverte. ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax si topp gi ak safoo gi di jaajëfal itam équipe technique bi ndax ba fa dëgg yàlla liggéey bu tool nii nga def si sa kéemtalaay kàttan ba ñi nga xam ne ñu ngi si réew mi ba si bitim réew di ko suivre en direct ñooñu amuñu seen fay. kon bu leen fàtte aimer suñu vidéo te abone suñu page jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulah.